ma feeñal fi sëriñ baara mbàkke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xar baax borom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baak taxawaayam ba doy na kiimaan keroog bés bu mu feeñee ci daaru duniyaa la daam xettali xeet